quatre trois la ñuy jóg bu leen toog ay mitaande bu maye dara. quatre ay RTS RTS barkiya. billahi. waaw lu tax jëloo ma yow. waaw ah, yow dama dama doo ñëw ah. te boobu ma ne wax ma loolu lu tax mbay mbay doo bàyyi ay wax <laughs> mbay ngi tas dëkk bi te yëgu leen ko baax na. jëloo <laughs> non nga may daw yéen lañ sélectionné ma bañ. <laughs> Arma man naa seeg yéen ñi nga xam sax su yéen terrain man. RTS sax a tere mbay lan la. <laughs> déedéet déedéet mbay sama anniversaire anniversaire la tey. mbay loo ma wax waaw happy birthday to you. merci joyeux a in in happy birthday to you ah. oh, oh foog idoon ko. mais xanaa da ngaa dolli cere yow dolli ñeex moo tax ma sax xam nga yow chaque jour su ma jaaxaloo yow soo demee ñëwaat. da ngay dolli cere yoon ku yokku neex moo tax loo ma mën wax lu dul sama anniversaire bi joyeux anniversaire mais happy birthday to you Sénégal yëpp nañu ko defal vidéo vidéo sax garaawul ah su sukaru koor nañ ko def sukaru koor parce que sukaru koor a ngi lay yaakaar xale yaa ngi lay yaakaar kër ga comprendre nga dañ laa war a jox xaalis comprendre nga dolli dolli dolli cere yokku ñoox ñeex gën naa de foo ne nii ko ah mais xanaa. waaw da ngaa dolli cere yokku yokku ñeex si koor gi. ba ndox mi. butéel bi waaw butéel bi ma nekk si ngay def dama naan dama fàttali mu nekk nii. Hmm. moom la ñëpp di seetaanaat. mais mais <laughs> mais xanaa yow sëñ yi. ba nga ci jékki-jékki koor gi ñëw bàyyi ko ko ustaas yi <laughs> ustaas yi des des fi mu nekk nii xamal sa grand plateau bi nga def nga ko ba terrain terrain boobu yëpp. mais xam nga on m'appelle chaque fois l'animateur de la jeunesse. donc man dama bëgg touche bu may indi rek. touche un petit peu la jeunesse c'est pourquoi ñu indi len tribune des jeunes. pour rassembler un petit peu lépp lo xamanteni ni rek. waaw euh, ci domaine bu ne que ça soit muy étudiant. Mhm. muy travailleur. Mhm. muy. Euh,

Ah? sant yàlla sant yàlla Mbaye. mais Idda léegi. gis nga concept. mais Idda léegi. concept dafa grave. ne léegi. nga ne da ah, nga dem. Eh, waaw loolu. yow na. kër gi kontaan na Mbaye. non mais. mais yow fu mu nekk nii. waaw après concept bi da nga koy changé wala. après koor gi. xam nga lu tax ma indi ko ci koor gi. parce que ku ne xam na ni koor gi. te day saturé. Uh-huh. boy indi produit na doon produit bu am doole. Mhm. donc ragaluñu won pour indi ci koor gi j'ai demandé à madame Ndiaye mu may ma ci koor gi ma tambalé ko. Mhm. pour mu gëna metti Sénégalais yi mën cee xel. Mhm. donc lolo tax ma dugg ci biir koor gi te ku ne xam na ni plateau yi am ci koor gi yëpp. c' de grands plateaux ñepp koy sétane ci Sénégal. donc bu ma ci inséré woo. c' pour montrer aux gens également que li ma indi ni du lu ndaw. et day continuer ñëpp a ngi ma Sénégal su ma d'accord rek xam ne yaa baax Mbaye eh, ki kooku yaa waxtaan ak moom wala. ah tiktokeur bi. kala waa jooju wala Bachir. waaw ba TikTok yaa Madji yaa Bachir yaa Doudou fait des vidéos loolu gisagoo ko loolu après koor gi la moom dafa nekk en tournage donc c'est une équipe jeune boo xamante ni j'ai rassemblé un petit peu les influenceurs génnee yenn yenn yenn euh, euh, euh, camerounaise boo xamante ni gel bi camerounaise ma indi ko indi raki raki seen mauritanienne en gros daal Afrique la ñu regroupé ci ci benn plateau pour vraiment indi benn touche bu mais yow loolu sa idée la xasaa nga ni sa idée la yow propre idée barke alxuraan maa ko bind sant yàlla nag lii rek la ñuy ñaan nga ni dans le bett benn jour sama kër sa kër. Hmm. ñu waxtaan parce que yow loolu ngay def nag. non non il faut ma loolu ngay def ak sama anniversaire bi nii dafa lool. <laughs> non dafa lool sama anniversaire maa ngi man gasa yeeg may xaar dama bàyyi ma dem lekk sama gâteau. non non waaw léegi sa problème ak dëkk bi message parce que yow tout ça dañ daan gis problème amour dañ si daan dugg di génne ay vidéo <laughs> problème problème famille jàmbur yi nga siy dugg. famille jàmbur. non non ñëpp man de ci sama yoon nekk rek lañ may dégg. waaw mais danga daan jël ay bon moral parce que xale yi dañ la bëgg. waaw mais yow hmm. tolluwaayu dëkk bi doy dof nay ah affaire kii mais joxewu si benn message. message boobu moo nekk ci tribune des jeunes. ma danga encaissé nee naa la tribune des jeunes saa lu ma encaissé. ah dañuy encaissé. ah soo encaissé xam nga dañuy noppi. ah bon ah loolu dañoo guma. ma tuuti rek wul seytaane wul Big Taf. Big Taf mais moo encaissé. barke Serigne Touba yow ñàkk nga fay dafa booy bi. Big Taf moo encaissé. question question daf nday daf nday. ah daf nday question. daf nday si lan. parce que ñu jaxasee dëkk bi dëkk bi di xeexandoo. waaw mais erreur la rek erreur la rek xam nga. Euh, ku ne gis na ko ñu ngi koy ñaanal euh, li bu mu ko dalati quoi mm-hmm. ye na xam ni Sénégal dañ ko bokk mm-hmm. yoy yep jaru jaru ko fi quoi mm-hmm. dof euh, man grand bi ben yon la ko ma gis ku cool la waxtaan bu neex bu rafet la waxtaan ak man et puis maa ngi koy ñaanal foofu mu nekk itam bu fa gene yep bu mu ko ci fekkati parce que aussi do gis deug ni ba pare ni dang ci deug ku ne xam ne dafa def erreur et l'erreur est humaine donc bu gene na moytu bu baax a baax nekk ci yonam te bàyyi mais est-ce que doo ko invité foofu nga xamantene on verra de toute façon

amul maa la ko may. Ah. c'est bon c'est bon barke alxuraan. Ah. woo téléphone et puis yaa ngi préparé war nañ dem Italie. ah waaw. Eh, eh, eh. yow yow war nañu ànd Italie war nañu koy nëbb gaay da ngay daw. da koy bañ mooy il faut mu ñu. te te fi ko jël mu ne ma. fii suñu côté. Ah, suñu waree ñaari téléphone nga yore. moo fi teg tànk loolu la wax xoolal xasaa loolu la wax léegi. mais ñaari téléphone nga yore léegi. taxaw léegi xasaa li mu wax xasaa dali ma. lan la xasaa wax. nee na dinañ xam ne alimentaire lañ nangu. waaw gis nga bi ngi nii dugal ko gis nga. lii garaaw na de. mbay yow waaw nee na. waaw xasaa lu mu wax. waaw nee na. waaw balaa corté bi euh, su corté bi jeexee. xam nga instant bi xaw naa rek oustaz si nii nii. waaw grand plateau bu muy def. mais nee na su koor gi jeexee. waaw dañ xam ne moom moo fi nekk. xëcaa moo wax loolu. xëcaa moo ko waatal mu ne lan. nee na waaw. da rus ay ñoom Padros ak ñoom Awa mais rusatu leen. waaw.

ci li wax ci li may wax ci mbay wax. waaw mbay wax li. moom ci vidéo bi vidéo baa ngi yow nangul nga loolu xëcaa moo la wala moo la yàq ma non man xamuñ ñëpp ma mën leen daal xam naa ko xale du foo ak mag bëy bu àndeeg morom yi bëyam dina mucc mais bu àndeeg gaynde kan mooy kan mooy bëy ak kan mooy gaynde non je sais pas en tout cas. ah xëcc nga classé ci bëy non eh! dama lay laaj. non non non. da ngeen di seetaan yow. non day laaj nag xëcc mooy bëy wala. kaa am na. xëcc mooy bëy wala. wuyu kii am. non kan mooy bëy. ah xale bu ndaw. waaw mais si sa xale bu ndaw. mais kan mooy bëy bi. ah xale bu ndaw di dugg. waaw kaa am na. damaa xam ne xëcc xale bu ndaw. waaw lan moo tax muy wax wax ji. xale bu ndaw est-ce que xeebul Padros. leen daal laal ko wax leen daal laal ko wax. est-ce que xeebul la. bëy bu ànd ak moromi bëyam day mucc waye bu andé gent ah bu ko ci fekk na xamni mom la. be xisha pare na. mo déggul li ma lay expliqué ah jox na lu doy war bëy day ànd ak bi bëyam xar ànd ak bi xaram. génn ànd ak moroomu génn. lo loo xisha lan moy sen problème. jotee ma xisha de yene ci siitaane yene ci jam yene ci siitaane yene ci jam parce que dañ lay indi duudu indi duudu fi defo

important xëcca sax moo ngi ne le xëcca sax moo ngi ne le tay tay xëcca dafay am solo lool xëcca tay tay xëcca wuyul tay fi tay tay tay tay jaxase bi léegi xam nga ay waay jaxase la tay tay rek kay moo kay moo bu jiw non non non jubo amul de non jubo amul jubo amul eh jubo amul eh jubo amul de jubo amul de jubo amul non jubo amul déglu ma wax dama ne ko déglu déglu jubo amul ah. dama ni bëy day ànd ak moroomu bëyam xar ànd ak moroomu xaram bëy bu ànd ak moroomu gaynde eh, bu ànd ak gaynde lu ko te fekk moom la yàlla doon wax de <laughs> léegi kan mooy kan mooy bëy dama dama dama dama c'est clair yow c'est clair waxaan nga ko ci kanam léegi nag bu ànd ak bëy bu ànd ak après lu tu ci fekk moom moi. cest li li moi li importance moi. importance la clair. C'est importance ah, ah. dugg ci bi eh. c'est clair. <laughs> c'est clair. ngay kii da ngay tëkku da ngay tëkkuwaat <laughs> da ngay tëkku xasaa. tëkku ma xasaa ya. Ah, xas billaay xasaa moo ko wax. non mais dama laa wax lu leer. Ah. man tontu ma xasaa dama laa tontu lu leer. Ah. waaw yow yow foofu nag yow. bàyyi jàmbur. yow lan la yow lan la jëlee bi sa téléphone yow balaa doo xool kan la. jëlee bi sa téléphone eh boo kat buy soppal ndey. may la may. yow Padros dàq na la. lan nga jot rek lan nga jot rek Padros. Padros. damaa kii daa nu mu tudd sax. Euh, euh, da laa bëggoon wax sax Padros euh, damaa war damaa war. mais mooy yow tamit dina la war. Padros li nga ko def moo ñaaw. lan la dàq indi fa ay xale ji. lan moo tax loolu. waaw mooy li mu wax nii li mu wax nii ma dëgg la. waaw dafa jëndee jigéen nag. waaw dafa jëndee jigéen dafa jëndee jigéen. waaw lan ngeen jotee. doo jotewuñ dara c'est que dafa dafa réew rek. asu moo ma nekk ak réew réew ne ko réew ne ko jàpp rek. métti na la. waaw non mais nag mais nag mais nag mais nag bon c'est c'est que dama nekk ci leen nag dama dama xew xam nga nag mbay. ah mbay dama xew nekk di ataaya. waaw di caay waaw. mais mu indi benn xale bu jigéen bu xonk boo xamante ne ak ku ñuul boo xamante ne oh métti na ma trop mais lay ko ko moom mi la ma war a indi xale jigéen ñi teggi ma la war a mu teggi ma indi ma xale jigéen ñi mais boogar mi ngi def émission bu lay émission rajo loo wax la la lu mu la laaj da moo dàq da moo dàq indi xale jigéen da moo dàq indi xale jigéen ci plateau bi kii gis nga booy wër artiste hors pair ci Sénégal jàppal kii bu ko ba non non non non non non dàq ma ko de kii moo fi ne non non déedéet mu bokar a ngi ci rajo bi waaw ah. déglu dégg déglu xoolal bokar a ngi ci rajo bi bokar a ngi ci télé bi bokar moo nekk koo xamee mënul ànd ak kenn léegi ah. yëfi boppam lay yore di toog ci télé bi di diriger d'accord hmm. yaa ko koy dégg tous les tous ci rajo bi di toog ci télé bi di diriger daal sa sa sa fi nga kii woon gars ko doon seetaan mais nga dàq ko indi fa ay xale yu jigéen loolu la sénégalais yëpp di wax loolu la ñëpp di wax parce que sénégalais ma indil ay jigéen ñi dañ leen a soxla dañu bëgg di xool

tey nag lii exclusive la mais fexeel ba looy tiitre na nga ko xam dem nga ci Baye Sall Baye Sall dàq la nga ñëw ci man ma dàq la nga dem ci Italie Italie ma setal la. non dama koy setal. dama koy setal dama koy interview boobu mu def. loolu Italie du ko wax.

à part Wally dañu ma woon yow. ku la laal ma. ka mu ñëw ci mu ni ko ku ko laal ma. ma xaar àdduna koo bëgg. kan ak kan nga bëgg. Wally Ballago Seck. ak laa gën bëgg ak Padros yow. ak Wally rek lay bokk la bëgg. <laughs> leneen lu ma. ka xar. yëgoo fa information dafa dem wéeru si Fako Modou Mbaye pour ma ko Fako Modou Mbaye jégal ko. nekk nii kër Papa la réeree. ak Wally heure bu ko neex day dugg kër Wally heure bu ko neex day génn kër Wally kii liy doxal liggéeyu Wally lay def chaque jour mi ngi promouvoir Wally chaque jour mi ngi tiitaroo Wally bàyyi leen seytaane mbay mbay bàyyi seytaane lan moo tax muy muy bàyyi non bàyyiwul ah. kii fay dégg na Wally seytaane nga ma wax ma wax